rien à voir moom lam doon wax ak Rizé lan la fa doon def man c'est ça mon problème. xam naa dafa xamul définition wu rek. dama yaakaar ne xëy loolu la boo ko xamul métier t'as loolu tamit dëgg la. Mhm. en tout cas daa ca concours général 2024 ba Zeynab Diène Samb mii ak Ahmadou Bachir Touré mii. ñooy les meilleurs élèves du Sénégal. Mhm. yàlla na yàlla lafal leen cet. lii quotidien ne ca concours général ba ba tey sax le Sénégal a besoin de scientifiques ça ce sont les propos du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne mu ngi déplorer bésu candidat baccalauréat yi euh, dans les séries scientifiques ak techniques mu ne enseignement technologique ak formation professionnelle euh, ñooñu ñooy les leviers d'industrialisation euh, Khadim Gadiaga mii Khadim Gadiaga mii li mu nekk nii na ci génn du dëgg ah génn ci revanche Modou Lo Balla Gaye ay 300 millions billaahi bés bu ko Modou Lo nangoo signé bu boobaa damay Père Noël dootuma du sama yoon dootu ci ne Modou la bul bëree teeg Balla Gaye de man dama lay wax rek ma lay wax lu bëri dama lay wax tuuti ah, dina bëri de dina bëri du bëri moom de bu sobee du bëri moom bu sobee du bëri ak moom suñu xay le quotidien le quotidien suñu xay biñu biñu dajalu stade maa nga koy nuyu euh, Pape Gueye Pape Gueye maa ngi lay nuyu bu baax le quotidien le quotidien mu ñëw ci marché financier bu UEMOA du bëri de bu soobee yàlla le Sénégal ne se cache plus 66 milliards euh, levés euh, lundi dernier et voilà et puis euh, la société civile pacte de bonne gouvernance bi ça fait aussi l'actualité du moment on passe à tribune mu ñëw ci flambée du prix euh, du produit le plus brisé le café Touba Nabou Cor connaît café Touba tu es une es une grande ségueuse de café Touba ah, ah si Nabou seen kër laa dëkk nag segg café rek nga mën mënoo leneen <laughs> wala segg service fekk fekk ñu segg mu servir fekk ñu mooñ Ngoné répète ça s'il te plaît. dama ne. Hmm. fekk ñoom Saleck ñoom Mbaye segg ba pare. Hmm. mu servir. Hmm. day mel ni moo segg. te bu ñuy segg ñi takk noonu te dañoo takku nag mel ni ku ci bokk. bu ñu ñëwee servir nag kafe gaa ngi nii. waaw wala wala wala ñu mooñ. mu ñu mooñ ba pare. waaw ba defar ba pare mu téye naan cere jaa ngi jël ma vidéo bu leen nekk samay noonu bu leen nekk samay noonu. Idriss ngeen leen ngeen nekk Idriss Idriss Idriss bu leen nekk samay noonu <laughs> <laughs> <laughs> rafetal leen ko. <laughs> am na Kaaba wax na nag yi ñu tey say dossier ci réew dafa bëri de. takk du xarit rek moo gën ci yow def ñu ennemi. à tout moment mën nañ laa yàq man garaaw mën nga ma segguloo café mu ataayaloo. waa ataaya moom du yow rek yaa ko bañ. Nabucor est-ce que xam nga ne diversion ñu génn tuut ci revue bi ba yow man Pape Ousmane Cissé su may bëgganteeg mi boo ma nee damaa bëgg ataaya. damay feebar. mën naa la bàyyi <laughs> à tout moment. Ah, man dama c'est que man ataaya bi déranger wu ma laaj ma lu ma déranger. fuural bi. su ko defee nag nabu ko damay bëgg yow mi may bëgg nga def ni waaja ma la waxoon ca oto ba naa waaja daa nam ma ataaya Pape Ousmane gestu gisul gaz gisul fourneau xamul fu mu koy tegee saa waay daa jënd benn paquetu warga daal di dajji rek fëgg fëgg paquetu warga bi daal di yóotu ndox bi rek nga lax ni ko jékki-jékki na nii ñu naan ko looy def naa damay a <laughs> tribune mu plus cher que le riz et mu ne le kilogramme passe de deux mille huit cent à cinq mille francs pour ñu justifier la hausse les vendeurs fu mu nekk ni nu ngi wax ci wàllu provenance de la graine telle que Côte d'Ivoire ak Guinée-Bissau mu ne les vendeurs obligés ñu wàññi quantité bi wàññi leen ko ci suuf beneen bi mooy saagay ci réseaux sociaux waaye yéen ñu fuural ba tey fuural looy def ni mu naan damay fuural ngay jaxase kat e surtout sur les réseaux sociaux premier ministre Ousmane Sonko nee na na mu baal ree ji nee na mën naa seeti na euh, journaliste yi tribune moo ko wax. bàyyi leen ree ji. <laughs> waaw la ma waxoon bugaan boo noppee rek ma noppi waaye léegi ma noppi naa. yaa ngi dégg Ahmed Suzanne Camara mii moom moom ñam na fa mel nii euh, envoyé nañ ko en prison <laughs> par le juge du troisième <laughs> cabinet détournement présumé de deniers publics mu ne euh, Ndiémé Dieng porte parole day na Mbodj moom itam dañu ko arrêté. tribune dina ko xamal source A ne non respect jusqu'ici du pacte national de bonne gouvernance démocratique ok luy problème bi de bonne gouvernance démocratique proposée par la société civile président Bass fu mu nekk nii ñu ne dafay inquiété plainte contre Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop pour abus de biens sociaux présumé concernant la gestion du groupe de presse immédiat ouais. parquet activé mmh. les prévenus accusés de n'avoir pas tenu lii moom nekkatul problème bu fuural kese baax na de lan la problème mu xel li boo fóolee pare fooy xel ah boo koy xel da koy ah boo ah très léegi nag boo ko fuuralee ba pare da mm. koy xel ci technique apprenti ba noonu nga koy defee mu ne comptabilité culpabilité xam nga comptabilité euh, les prévenus sont accusés de n'avoir pas tenu la comptabilité et de n'avoir pas déclaré l'état de cessation de paiement de la société dans le délai de trois mois beneen bi mooy li ñu leen di reprocher mooy ñu choisir euh, par la non présentation des comptes de l'approbation de l'assemblée générale des associés dissimuler la situation de la société pour ñu aboutir à une perte cumulée de près de 4 milliards la lii lii du 4 milliards. Ouais, milliards dont environ 2 milliards au préjudice du requérant. ah sunu confrère yi waaye yal na yàlla. Mm. jubale. jubale te def ci jàmm waay du dëgg. Ah. Ah. jàmm rek lañ leen. ba ah déet nariyeel écriture yaa sew nag moo tax sawaruma ci fu mu ne nii. Ah, Mamadou Ibra il est injoignable. Alassane Samba Diop ne que celui qui nous accuse prouve que nu avons abusé de biens sociaux. am na ki leen di accusé na indi ay éléments de preuve am. tudd nañ ci Abdoulaye Sylla. Hmm? c'est que nag journaux yi dafa am journaux yoo xam ne waxuma ñoom ci lañ bokk de mais journaux yu bari nekk seen ginnaaw leen la waa ji waxoon nañu xool. Hmm. defaat bari na de. ah ñu xamee ku ko moom rek coow li bari. doy na waar de na ci concours général bi toujours mu ne public bi moom moo écrasé le privé ci édition 2024 bi mu ne pour les euh, classes de première sur les 55 lauréats 48 yëpp ñu ngi jóge ci public bi seulement 8 ñoo jóge ci privé terminal 37 ci 45 lauréats yi yëpp public lañ jóge 8 ñoo ci jógee ci li nga xamante ne moom mooy école euh, privée on y va les échos ñëw ci conclusion des assises nationales ak recommandation bu CNRI mu ne société civile dafay rappeler à Diomaye ay engagement am euh, Ousmane Sonko itam euh, soor na génne na li nga xamante ne moom mooy cravage bi ginnaaw bu mu dalalee xale yi nga xamante ne macha allah ils sont à observateur def na benn enquête sur les salaires Euh, yu sunu ay dirigeants ay révélations sur le traitement les avantages et membres du gouvernement président d'institution ay députés ak ay directeurs euh, généraux beneen bi mooy justice bâtonnier Ali Fall mais quali qualité xam naa ça ça doit être du latin. mais qualité. mais qualité c'est du latin. c'est du latin ou c'est de l'espagnol li li waaw escalité en fait bari lu bari ci wàllum justice dafa am dafa am latin. latin la mm-hmm. ah. waaw c'est du latin. alors stade. ñëw ci West Ham euh, mi nga xamante ne dafay attaqué wu ab Boulaye Dia après Lazio Bologne ak euh, Wolverhampton ah ci JO 2024 basket ce soir États-Unis moom mooy euh, donc jouer <coughs> balle orange ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy Soudan du Sud. on y va match bu neex kay. match basket bu neex lay doon incha allah record ñëw ci transfert bu Lamine Camara Monaco.